salaamaaleykum mbokk internet yi ginnaaw bañ leen nuyoo di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour ngeen di leen indi li gën a fës si bopp xibaar yi ci noonu nag dama di nuyoo nuyoo bu amul ab leen kontaanee bu baax a baax a baax di nuyu sama gars yi ñëw ak yéen ci li gën a fës si bopp xibaaru làmb mbay nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke nga ne danga leen di nuyu nuyu bu amul ab loolu mooy lan. nuyu buy continuer rek dem amul app quoi ah, nuyu chaque jour laa nuyu waaw wax nga dëgg dañuy dañuy dañuy kontaane suñu mbokk internet yépp yi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla euh, Leewtoo TV la ñuy saxoo di ñu tiitaroo di ñu ndamoo ñoom tamit ñu ngi leen di tiitaroo di leen ndamoo di leen saxoo saa su ne di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal bu baax a baax Sénégal yàlla na fi yàlla dolli jàmm amiin Assane Waalo ne Mbacke maa ngi lay fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV di amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom muy noonu nag revue de l'arène bi huile de huile Jador moo leen koy may chaque jour fii ci Leewtoo TV Mbaye. waaw huile Jador moom nekkatul diwlin ba nga xam ne dañ koy présenté déedéet. Sénégal yépp ko xam ndax mooy diwlin numéro un ci diwlin yi kenn du moom. ma nga noonu mardi 23 mars 2021 journal suñu laa moom xëy ci ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk Modou Lo Ama Baldé le grand jàkkaarloo fixé le 6 avril incha allah mbay mu mel ni date ba leer na. Ah, léegi léegi léegi mu leer nag de. ku doon wër Modou Lo wala nga doon war Ama Balde bëgg bëgg leen a gis léegi nga jàkkaarloo ñoom ndax ñoom ñaar fas yéene na fas yéene nanoo daje incha allah bu ci yàlla àndee le si le le 6 euh, le 6 avril la le 6 avril incha allah bu ci yàlla àndee ñu fas yéene def nag Assane seen première jàkkaarloo ñu fas ñu buñ leen gisee mën a def jàngat ci ñoom seen état de forme ak li nga xamante ne bii moom la ñu war a andi ci jouru làmb ji dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee woy wa daanu na ko doon xaar euh, di nga ko doon xaar ay année ngi nii wala depuis parce que combat Modou Lo ak Ama Baldé mi ngi taxaw décembre 2019 depuis boobu ba léegi combat bi doxagul léegi nag li Luc Nicolaï fas yéene na euh, tëgg combat boobu ci ren mais avant boobu bëgg na def premier face à face entre ñaari lutteurs yooyu face à face boobu nag mi ngi ko prévoir le mardi 6 avril bii di ñëw fu mu koy nar a defee euh, journal suñu laamu nee na mi ngi waxtaane 2STV wala TFM en tout cas ñaari télé yooyu dina ci jàpp benn euh, amal fa face à face boobu war a dox ci Ama Baldé ak Modou la le 6 avril. ma ngi noonu ministre de la justice Malick euh, Malick Sall audience avec les lutteurs lam ca xam ne mooy mbëri yi lañ koy la ñuy sàkk ci moom mooy ñi jàkkaarloo ki nga xam ne ni mooy chef de l' état Macky Sall ñu jàpp ne aussi la ñu gis ca seen ndaje boobu noonu jumte boobu ministre bi def dafa jàpp dafa arrangé ñi nga xam te ni mooy mbëri arrangé ki nga xam te ni mooy Malick Sall Mbaye Babacar ah loolu yéeme na ne Ndeye Mbacke mi ngi noonu euh, ministre bi nga xamante ne bii moo gàlloo wàllu yoon ci réew mi ñu koy wooyee ministre de la justice Malick sàll gannaaw ba yëkkatee woon ay kàddu ya nga xam ne mbër yi ñoom ñëpp meroon nañ ci ci gannaaw bi nag gisante nañu euh, ministre bi recevoir na leen wante ministre bi li mu xamle nee na mbër yi bi mu daje ñoom li mbër yi sàkku ci moom mooy que dañoo bëgg a daje ak jiitu réew mi kii di Macky Sall ngir waxtaan ak moom. dëgg la Mbaye Babacar li ñuy nar a wax ni xam naa du neexaat ñu bëri puisque bii mbëri seeti Malick Sall boobu li leen fa yóbbu woon pour mooy pour mu jégalu askan wi ci kàddu yu mu yëkkati woon teg ko ci deru mbër waaye nag d'après li mbër wax ci jour boobu waxoon nañ ban génnee nee na ministre bi jéggalu na ci kanam euh, askan wi waaye nag Malick Sall li mu wax ndax dafa demoon Fuuta ñu laaj ko ci question boobu li mu fa wax mooy que ne mbër yi ban fa demee leen fa sàkk mooy que benn audience mu wutal leen ko pour ñu mën a gisanteeg Macky Sall loolu nag xam naa ne du leen neex li fa waxat également nee ne mbër yooyu sàkku nañ ci moom mu doon seen pare association bi nee ne loolu tamit nangu na ko teg na ci ne mbër yi ñoom euh, muy Balla Gaye Gris Bordeaux Modou ak Eumeu Sène li fa demoon ñoom jël nañ assurance ne bés buy demate euh, campagne ñoom di leen ànd ak moom ba ci campagne yi jeex nee na daal ba nu fa demee lii leen wax wuute ak lool li nit ñi yaakaaroon day na waar Assane. Mbaye mbaa loolu du noonu du nekk naqar ci nga xam ne mooy mbëri ndaw dañoo jàpp ne mbëru VIP dañ faa dem ngir nekkal fa li nga xam ne mooy seen bopp. waaw parce que booy xool ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy association des jeunes lutteurs ñoom ond la fu lool chaque jour loolu la ñuy reprocher les VIP. dëgg la Mbaye Babacar en plus euh, histoire bi mu waxoon mooy euh, kàddu yooyu mu jëloo teg ci kaw kaw mbëri yi. ministre bi lu wax ne ne malentendu la waaye malentendu dafa mel ni ñaari parti yëpp la arrangé te demeewul noonu ndax euh, daanaka dafa xas lutteurs yi te ba léegi jéggaluwul en tout daal réunion bi amoon ci ministre bi ak mbër yi yaakaar naa jeexagul te dinañ ci waxaat incha allah taq na suuf sa taq na suuf mu ngi noonu mu nga noonu nag Moussa Ndoye Moussa Ndoye rassure ses fans je vais s'il plaît à Dieu loolu la xam ne ci journal suñu lamb Baye Babacar Moussa moo wax loolu moom mi nga xamante ne bii moo war a jàkkaarloo ak doomu Double di Sa Thiès moom ma ngay dalal xeli ay fansam ak ñi nga xamante ne bii ñoo koy supporté moom daal nee na incha allah dana am ndam bu jàkkaarloog sàccees ndax fi mu toll nii dafa soxla victoire te it loolu rek la dese lay amaa ay fansam. dëgg la Mbaye Babacar euh, ginnaaw bi Gaston tëggee euh, combat boobu war a dox ci diggante Sa ak Moussa Ndoye tey réagir na ci suñu làmb lu mu wax nee ne moom combat boobu amu ci jiixi jaaxa day daane euh, Sa nee na da koy daane parce que dafa jóge ci benn combat boo xam ne ni dafa la ci amoon ci contre Garga Mbossé te li ko war moom mooy daane Garga Moussa daane Sa Thiès mi pour relancer waat kàddu carrière am mais également pour que mu mën a jéggalu ci kanam ay supporters am mu nga noonu nag lu simple lutte simple arène nationale Fallou Ndiaye mise 4 millions ce samedi incha allah Mbaye Babacar. Fallou moo def loolu borom Ndiaye production ñeenti millions la tegal mbër yi. foofu ca arène nationale incha allah samedi bii di ñëw la le 27 mars mu nar a nekk gala ba nga xamante ne bii nag gala bu ma neex la nar a doon ndax mën na faa mën nañ faa xaar champion yu bëri asam. dëgg la Mbaye Babacar làmb ji ubbi nag ginnaaw ba Jax organisé première journée bi dimanche bi passé ci terrain gaal gi Fallou Ndiaye également nee na day tëgg loolu kañ lay am le samedi le samedi bi di ñëw ci arène nationale li mu teg nag moom mooy 4 millions woo ci mbër yi pour que ñu participer foofu ci arène nationale loolu nag moo nekk première journée ci arène nationale lutte simple ñu xool ne ba léegi ne liit simple moo gën a yomb tëgg que lutte avec frappe ndax dinañ dem deux journées te ba léegi lutte avec frappe amagul mu ngi noonu ci lu simple la ñuy desandi ba léegi gala Jax production ce dimanche passé ma euh, général Malika remporte le gros mise 2 million de francs CFA Mbaye Babacar. général Malika moom mi nga xamante ne bii moom moo jël euh, gala de lutte bi Jax production tëggoon fële ca terrain gaal gi moom euh, journal bi nee na dugal na ci biir poosam 1 million. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu daanee avec la manière Thiaka Faye en finale dimanche bi passé ci terrain gaal gi. Eh, souvent suñu làmb nee ne général Malick boobu ginnaaw victoire boobu am na 1 million Thiaka Faye mi nga xam ne ni moom la daane final 700000 euh, la am demi-finaliste yi nekk Cheikh Tidiane Niang Obali ku nekk am nga 45000 quart de finaliste yi ku nekk 25000 mais léger yi Cheikh Diagne moom moo daane Mohamed Moustapha Diagne Cheikh Diagne mi jël euh, trophée bi am na deux cent 270000 euh, Moustapha Mohamed Moustapha Sagne. mi nga xam ne ni moom la daane final am na cent soixante-dix mille ma ngi noonu bébé Elton bañ euh, écrit Balla Gaye bañ ko invité ci rubrique Leewtoo avec lam ca xam le mooy Balla gay 1 et mon lutteur préféré mu mel daa delloo bu mu ca Boy Boy Baye Babacar waaw ki xamle loolu moom mooy bébé Elton junior nekk fële ca école de lutte Balla Gaye moom bi ñu ko laajee kan mooy sa mbër préféré kan mooy sa idole ci làmb ji boo kan nga kan nga kan nga bëgg kan nga kan ngay kan ngay roy ci làmb ji ki mu xamle moom mooy Balla Gaye de doomu Double Less dëgg la Mbaye Babacar Bébé Elton mi ngi nekk ci école de lutte Balla moom nag bi ñu ko laajee ci rubrique Leewtoo bu suñu làmb def ne Balla Gaye numéro 2 moom mooy lutteur préféré ndax nee na moom mooy royukaayam ci làmb ji waaye nag bu ko defee wàcc na jusque mi ngi nekk école de lutte Balla Gaye waaye nag wax na nee na plat bi mu gën a mën a togg moom mooy mu xam sa Babacar <laughs> mu xam sa mu xam sa mu xam sa da ngay baxal rek mu bax kii moom yaa <laughs> <laughs> waaye teg na également nee na teg ndox mu bax rek nga sotti waaw loolu yomb na teg na ci également ne objet indispensable boo xam ne nii benn objet boo xam ne mënul dem bàyyi ko gannaaw nee moom mooy clé moto bi mën lépp ginnaaw mais clé moto bi mën na ko bàyyi ginnaaw wax dëgg mooy ay tànkam mu ngi noonu B52 junior Boy Melax ce défi ce soir incha allah ñen amala mooy face à face ñoom ñaar ñu war a jàkkaarloo xas-xasloo asal xam nga jàkkaarloo mooy mooy ku ci nekk wax li nga nar a andi jouru làmb ja xas-xasloo incha allah bu ci yàlla àndee B52 junior ak Boy Melax dëgg la Mbaye Babacar cinquante euh, 52 junior ak euh, Boy Melax tey ñu war a def benn face à face euh, foofu lay amee ci Africa 7 combat bi nag ku ko tëgg moom mooy mun ñaa moo Serigne Modou patron mun ñaa production combat bi nag nee na suñu laam nee na moom moo nar a nekk premier combat de la saison kon ñu xaar ko bientôt combat bi war na am mën a am mais daal face à face bi tey la foofu ci tele bii di Africa 7 moo ngi noonu nag adversaire bi nga xam te ne moo war a jàmmarloo Siteu Papa Sow Chafis avec Goro Sock et Franc Mbaye Babacar. ñu mu mel ni ñoom ñett gis nañ leen ñu def trio bu rafet. Mhm. Papa Sow Goro Sock ak ki nga xamante ne bii mooy Franc loolu di wane ne ñoom ñoom ñoom ñett ñu seen diggante ratax na trop quoi. dëgg la Mbaye Babacar cent pour cent pour cent parcelle lañ wax diggante Papa Sow Gora Sock ak Franc euh, souvent ñoom ñooy ànd. Oh. journal suñu làmb nag nee na ànd bi léegi mu gën a officiel puisque Gora Sock ak Franc euh, yaakaar na ne war nañu rejoindre euh, écurie bi Papa Sow formé ni ki daaw écurie bi nag mi ngi tudd Jàmbaar oh, Wrestling Academy moom la Papa Sow formé. te père ba jiite ko journal suñu làmb daal njortu na ne Gora Sock ak Franc war nañu rejoindre rejoindre équipe bi maka noonu nag dañuy desanteeg ba léegi lutte simple Pape Thialis Faye la boss de l'autoproduction ouvre sa saison à Joal ñaari bis teg fa li nga xam te ni mooy 1 million 500 bis bii di samedi 27 ak dimanche 28 mars incha allah bay Babacar. mi ngi noonu Leewtoo production ma nga jëm Joal Fadiouth bu ci yàlla àndee samedi le 27 mars ak dimanche le 28 mars foofu ca Joal ñu teg fa nag mise bu am solo muy 1 million 500 Pape Thialis mel ni euh, foofu la fas yéene ubbi saison bu ci yàlla àndee. loolu la journal suñu làmb wax euh, Pape Thialis Faye ouvre sa saison à Joal noonu la ko titré waaye nag comme ni nga ko waxee vingt 27 mars euh, le samedi 27 ak euh, dimanche 28 mars Pape Thialis Faye jëm Joal war fa tëgg benn gala bu am solo mise bi nag mu nekk 1 million cent comme ni nga ko waxee woykat yi mu nekk ndey faatu aadama Dialy Diab Diagne moo ko dara tëgg ñu fàttali ne entrée bi vendredi mille francs la. Euh, euh, euh, mille pour tour pourtour mille francs fa mu nar a nekk gala bu am solo ñu xaar war fa xaar également Tapha Tine ak Boy Niang ku leen bëgg gis demal euh, weekend bi euh, Joal. mu mel ni Tapha ak Boy Niang samedi bi ak dimanche ba ña biir Joal faju ña nga biir Joal mu na a nekk événement bu am solo Joal war a euh, ak accueillir également première journée ci saison bi war na nekk lu neex. mu nga noonu dañ ko xaarandi Boy Kayré veut que Diène Kayré fasse la bagarre avec Modou Anta Mbaye Babacar. papa Dia yëpp loolu doom ji. Mhm. Boy Kayré la mu wax doom ja di Diène Kayré nee na ko. damaa bëgg nga jàkkaarloog Modou Anta mi xeex ak moom mais Assane. Mm-hmm. est-ce que loolu du ay ndëgg sërëx non souvent euh, Babacar ni nga ko waxee comme ni nga ko ni nga ko waxee ba euh, Boy Kéré moom moo digal loolu Diène pour que bu jàkkaaroog euh, Modou Anta mu xeex ak moom. Mm-hmm. waaye dañuy gis ne souvent staffu Diène Kéré day tënk mbër mi te da koy tënk ndax combat bi jàll moom ak Quench. conseil yi moo bëri woon tellement que Diène Kéré libéré wul woon bëree conseil ba finalement mu niil ji. bu toppee nii tamit également loolu nan la ko arrivé waat na ko bàyyi rek di wax ko ay conseil mais bu demee ba ci biir combat bi bu gisee par rapport ak situation yi mu conseillé ko mu adapté wu mais bu ko chargé ay conseil rek mën na ko tënk effectivement Assane wax nga dëgg mais Wolof Njaay dafa ne bëri wàllu teel la teen la de exactement lu gaa yi lu coow li bari bari gaa yi ci pind bi rek la ñuy taxaw yow miy dugg ci biir nag sa responsabilité lépp yow lay doon. exactement Babacar nan ko bàyyi mën nañ ko conseil mais bu demee ba ci biir nag mu adapté wu par rapport ak Modou Anta li mu indi mu adapté ak loolu bu ko defee rek yaakaar naa mën na ci am ndam. Assane Wala looy tàggatoowee. Ndeye di la remercier di remercier <laughs> équipe bu Leewtoo yëpp comme d'habitude di remercier waa Linguère Yacine Fall Fama tout le monde équipe yëpp di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. Mbaye looy tàggatoowee. waaw xanaa jaajëfal ñëpp rek di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm ci beneen revue de l'arène jaajëf Mansour Fall yàlla na yàlla di leen jaajëfal bu baax ah, ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Leewtoo TV di ñu suivre chaque jour ñu ngi gis lépp commentaire et tout ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen kontaanee bu baax a baax di leen jaajëfal bu baree bare di sant sama cameraman bi nga bu ñaaw bi mañ pour ah di ko gërëm bu baax nee naa leen loo leen gis muy jekk ci di rafet rek du ñun moom la moom mooy def lu nice loolu noonu leen jaajëfal leen jox dig daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah.